leneen li wàllu man dama jàpp ne yow même sa bu ma ñëwoon Dakar sama kër tàkk war nga ma mën a aménager benn nékk ma ñëw dugg fa am déet am amoo yow générosité boobu loolu aada Sénégal pour nous, ñuy politique amuñu idéologie une de Nous kamne, idéologie politique même ñi nous dem militant damay dégg militant bu man nous dara waxul askan wi dara ci liñ koy yónni mu dem ko Nous dara mooy jox

dafa am problème ak waa parti réew mu dem sosi parti ñu dem ba élection mënul nekk candidat mu dellu ci Idrissa Seck di ko jàppale ay Tall Sall bu meree bokk ak ñun Benno Bokk Yaakaar bokk parti socialiste dem wuti pour nekk candidat ak programme am mënta am sañu te dellu ci famille bi mu bokkoon bu ñu waxtaanee ba ni ko liñ defoon ñun dootuñu ko def baal nu àq sañ na ko loolu rek la Aïssata Tall saal loolu la def bokkum loolu la def nangul ko loolu man mi ëllëg mën naa koo def ak keneen ak keneen kon man loolu laa ci